Madame la Présidente, monsieur les ministres, ministre de l'Agriculture, ministre du Budget et du Dialogue social, les collaborateurs du ministre, les directeurs généraux, Monsieur Ba, Madame Dramé, Monsieur Sané, chers collègues. Je veux faire juste un rappel, parce que les Sénégalais ont connu une sécheresse de 15 ans. Lorsque le président Ouad a accédé au pouvoir, les pluies étaient abondantes, ce qui a causé les inondations que, que, que la banlieue de Dakar, surtout dans la commune au j'ai dirigé, que j'ai dirigée pendant 12 ans. nit ñi bi ñuy dëkk danoo dëkk ci sécheresse xamuñu woon ne am na ndox bi yàlla defee nag waa ji ñëw indi wërsëgu ndoxam ñu am problème mu taw lii ci baay bi nag moo nekk ci doom ji donc ñu sant yàlla baay bi indi na taw doom ji donn na ko caat maa ngi ñëw Karim moo koy yeggale monsieur le ministre du budget monsieur le ministre le bon développement d'un pays commence à à la consommation locale c'est ça la vision de son excellence monsieur le président de la république d'avoir créé Guana d'avoir créé plan REVA baste yi ci dëkk bi orange yi ci dëkk bi li ci nekk ci dëkk bi ñu di ko béy ci dëkk bi gannaaw yàlla ak yonent bi ak ci moom la ko yàlla jëlee jóge monsieur le ministre may ñaan leen le ministre de l' agriculture intrants yi nay teel a dem su teelee dem te nekk euh, bu baax tànneef bu baax yàlla mën na noo defal sutura monsieur le ministre il faut facilité favoriser l' accès des femmes à la terre ñoom ñu am solo lañ ci liggéey bi monsieur le ministre il faut aussi qu'on de l'eau pour faire la culture maraîchère mbéyum noor moom la wolof di wax mbéyum noor mosieur le ministre il faut aussi des magasins de stockage pour conserver les produits avant avant de les avant de les rendre de les vendre li ma lay laaj nag coow li ci kuy ci dugub ci ci gerte gi bëri na ñii naan du ma def bon ñii naan du ma jaay 250 ñii naan 300 la ñuy jaay maa ko dégg à travers la rajo dégg naa sax ca Ziguinchor ñu ne ñoom amaguñu point de vente xaw ma nag loo ci xam yow monsieur le ministre wolof njaay dafa ne tuut te teew lu mu tuuti tuuti boo ko jaayee mu teew ñu jox sa xaalis nga dem ma wax ni il faut ñu renforcer ceeb bi tukkuleur yi bëgg nañu ceeb lool lool lool lool Sénégal ceeb la xam même kuy feral sa doom ceeb nga koy ferale il faut ñu renforcer ceeb bi mbéyum ceeb mi mbéyum gerte moom la ñu xam il faut que ñu renverser renforcer pomme bi oignon tomate légume mais li ma jaaxal nag li am léegi ci légume bi ak li amoon ñun ba nu nekk lu tuut bokkul bu njëkk ba légume dina def ñetti weer soo jëlee carotte bi nii lay toll soo ko jubee mu xeeñ lool léegi carotte bi bu defee une semaine deux semaine lañ koy bay boo ko génnee mu toll ne man te boo boo amee ñaari fan day daal di nëb donc engrais bi it il faut ngeen wax ci parce que li lakk carotte bi nag ba mu yàqu bu demee ci butit du baax moo tax feebar yu bëri di nu dal ma wax ne waxu wax naa dëgg may nuyu ana Fada doomi Ablaye Wade digg doomu Ablaye Wade gi di Fada maa ngi lay nuyu sunu frère maa ngi nuyu aussi Sané parce que ñoo dëkk Gunaas te sax miinu ma ko nag wax dëgg yàlla et pour terminer je vous renvoie à la récitation du du bon de laboureur du laboureur et ses enfants leur laboureur et ses enfants le labou laboureur santant sa mort prochaine Fibrir ses enfants et leur par la santé témoin. Gardez-vous de, la, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. L'héritage, c'est la terre, rien que la terre, la terre, rien que la terre. Sénégal jëm ci kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam